Euh, di rafetlu aussi teewaayu presse bi xëy na loolu waxuma ko ci tubaab mais lu am solo la parce que li ñu bëgg a siiwal da ngeen ci nekk kenn bu am solo euh, ci biir loolu tey dañoo teew fii ci Thiès euh, di waajal ndaje mu am solo ñu di ko wax foire écologie biologie foire boobu nag mën naa wax ni Agricole Afrique ci lañu ñu teg loo xam organisation bi Euh, kon tey financement FENAP ci la agricole sukkandiku pour bëgg a organiser foire boo xamante ni foire nationale la euh, jàpp na ñeenti gox yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi euh, gox yooyu kenn ku ne yaa ngi waajal pour war a teew ci foire bi ci biir loolu rek xëy na dañuy jàpp ni fii ci Thiès ci place de France buñ ci yàlla yóbboo la dale benn fan ci weeru juin bi ñuy ñëw ak. ba juróomi fan yi daañu fi teew def foire boo xamante ni ñu ngi jàpp ni lépp loo xam ne meññeef la wala jumtukaay ñu di ko wax équipement wala loo xamante ni dana mën a dundal suuf wala loo xamante ni weccoo la jëm ci wàllu xam-xam daañu ko def fii ci place de France euh, ñu ngi séntu it war a mat juróom-benn fukki euh, kuréel kuréel béykat wala ay exposants yu war a ñëw ci foire bi xëy na loolu rek laay sànni ci kàddu wolof. ndax mbir mi dama ko seq ak ñoo xamante ni ko ni ma ko waxee woon kenn ku ne di nga am loo ci sànni ndax euh, organisation bi ñun ñëpp ñoo ko bokk jërëjëf jëf waaw tolluwaay bio bi fi nu natt ëllëg àgguñ fa mais ñu ngi euh, séentu nañ ci ay jéego yu am solo ndax tey jii euh, ci wàllu ñi ñuy lekk kenn ku ne lekk lekk gu sell yitteel na la kenn ku ne sa wér gi yaram yitteel na la kon déjà loolu wane nañ consommateurs yi bu seen sago ñu lekk lu baax eh, bu dul loolu it boo dee seet ci wàllu sàkku xamxam bi même ci daara yu mag yi seen xalaat mu ngi léegi ci nan la ñu mën a jàngale seen biirum njàng mbéy mu sell te mu ci ayib mais it boo dee seet ci wàllu soppar ñi eh, walla wala ñi nga xamante ni ñooy wàllu jàppale yi seen yéene yëpp mooy fu kuréel goo xamante yaa ngi béy mbéy mu sell te mu ci ayib nekk nu jàppale pour mu jëm kanam kon loolu ay mandarga yoo xamante ni. wane na ni nit ñaa ngi jox gëdd mbay mu sell te bëgg na mu jëm kanam. ni waaw man maa ngi tudd Assane Gueye maay coordonnateur ONG Agricole Afrique donc nekk kuréel gi nga xamante ni moom lañ dénk donc organisation wu foire bi donc donc may wax ci turu FENAP donc ndaxte liggéey la boo xamante ni dañ ko bokk ak FENAP donc ñu. ñu am ci cër Endapronat am ci cër ASPAP am ci cër FENAP ci ba wàllam am ci par cër donc fi may waxee rek man dañuy wax ni FENAP dafa nekkul organisation bu tuuti jamono yu ñu toll xaw ndax ñi ma jiitu wax nañ ko mais am nañ 19000 membres te yaakaar naa 19000 membre ci biir Sénégal buñ ko doon paacoo dina am cër boo xam bu tuuti bu mu ci am bu nu amul cër bu toll nii Thiès it mais xanaa ñu mën a am cër bu toll nii promenade des Thiessois nga xam loolu buñ ko pàccoo woon ñun mu nekk suñu yëf bopp looloo tax nag mu mu mu am importance ñun foire bii nii te lu ñu yàgg a organiser la bi mooy dixième édition bi te loo xamante ni ni organiser nañu ko fukki at yoo xamante ni nii xëy na am na ñaari at yoo xam day am rupture te day am gàllankoor wala ay temps moom mooy tax ba lu mën a dem mais chaque fois amoon na ay foire yoo xamante ni doon nañ ko mais bi mooy fukkeelu foire boo xamante ñu ngi koy organiser biir Thiès. ñu ciy xaar tamit quatorze régions du Sénégal yëpp pour dire que ni quatorze régions bu ne dina ñëw ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci bio ñi nga xam ñoo yëngu ci produit naturel ku ci nekk am na représentant boo xamante ni dina ñëw teew ci foire mu ñu indil minimum minimum soixante exposants kon yaakaar naa ne loolu jar na ñëw xool ci donc mu nekk ñëw xool pour échanger donc li nga xamante ni mooy objectif bi mooy échanger sottante wecconte xalaat mais it ñëw jël si produit yoo xamante ni nii daf lay amal njariñ te it xool bu baax naka ëllëg la ñu mën a fexe ba nga xamante ni nii suñuy doom suñuy sët ñoom it dinañ mën a euh, lawal lu mel noonu loolu daal moom mooy yëllëg bi pour bañ a guddal donc loolu laa ne woon naa ko ci yokk incha allah ah mën nañ ko mën nañ ko donc pour euh, pour egg si foire bi yëpp maanaam budget global bi ñu ngi ko tënk ci plus de cinq millions de francs CFA mais cinq millions de francs CFA yooyu organisation yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew pour wax la de nekkul budget financement bu ñu jot walla dara organisation yi ñooy ñëw mu jaral leen ñu jënd stand mu jaral leen yaa ngi dégg ñu daal di fay seen paas mu jaral leen ñu fay seen lekk ñu jaral leen fay fu ñu dëkk xam nga loolu bu fekkoon ni wax dëgg ñoom gëmuñu lu mel noonu duñ ci duñ ci dugg. Mhm. nekk présidente Refabek ñu ànd ak waa FENAB ak waa agricole di organiser foire bio bi ñu war a def fii ci Thiès ci place Agora te ñu tuddee ko léegi moma Mamadou Dia. ñu ngi ciy woo suñu jigéen yëpp pour ñu fekk ñu fa xam ni lañ fay indi lu sell la lépp nag lu ñu yaakaar ci meññeef mu war a nekk di wàcc ci suuf si di ci ñor ak luy meññ ci eh, di jóge ci kaw garab yëpp dinañ ko fa exposé. am nañ fa it weekend boo xam ni vendredi boo xam ni dañuy doon sargal boo xam ni sunu moroom yi nga xam ni sunu clients yi nga xam ne ñooy ñëw ci sunu marché bio bi te yàgg ak ñun fukki at ak lu topp ñu ngi ci marché bio bi ak ñun doon leen faa war a sargal. am na dimanche boo xam ne tam ci bés bi mu war a ñu ci la ñuy jeexal muy la cinq dañuy def concours culinaire boo xam ne dañ koy def ci consommation locale li ñor ci biir suuf si tam ci sunum réew loo xam ne fii la ñore ñu jëggaane wuñ ko nuñ ko mën a sopparñee ba nga xam ne macha allah dinañ ko mën a teg ci table mu rafet lool ca neex a lekk bés boobu tam dinañ ko fa def kon suñu sañoon ñëpp fekk ñu fa ànd kook ñun. ba nga xam ne lépp lu luñ ciy yaakaar yàlla dinañ ko ci dollee defal ndax bio ku nekk xam na ne mooy mbay mu sell te mucc ayib di baax ci yaram di baax ci sa dund baax ci sa waa kër kon ñu ngi ñaan daal képp ku ñu fa fekk si rek di nga gis la nga xam ni soxla nga ko ci ndugg di nga ko fa fekk jën yëpp macha allah dara du fa jeex daal ndax bio ku nekk xam na ni lu am njariñ la Mhm. marché waaw waaw ñoom kenn mën leen lim ndax macha allah bari nañu dañuy def dañ daan def fi weekend bio ñaari weer yu ñu jëli ñetteel ba dañuy def weekend bio bu ñu defee weekend bio dinañ sargal lu mat fukki client defal leen teraanga loolu nag ñu daan defal loolu nag moom ñoo ñuy fekk tey àjjuma boobu ci promenade bi pour ñu sargal leen foofu mais yàgg nañu di ko def ak client yi. ndax client yi ñëw dañuy gën di yokk rek ndax ku dem di nga wax sa moroom li nga gis ak li nga xam ci bio bi ba tax na keneen ku mu ko dégg itam day ñëw bëgg nañu marché bi lool di ñaan sax mu gën a yaatu ndax nee nañu xat na fi ñu koy def waroon na gën a fës nit ñi waroon nañ ko gën a xam moo tax loolu itam yéen presse bi nga xam ne ñee ngeen liggéey ak ñun ñu ngi leen di ñaan ngeen gën ñoo tasal bio bi gën koo jàppale ñu ci daal ba mu gën koo xam ndax wax dëgg yàlla nit ñi bëgg nañ ko torop waaw. ku ci nekk ci turam ak santam di rafet euh, seen jataay fii tey uy suñu pour que li ñu tax a jóg muy du 5 au du premier au cinq muy foire biologique bi ñu dañ koy waajal ànd ko ak waa FENAB FENAB sur financement nag de Biovision. dénk liggéey bi nag lépp lépp ñu teg ko ci loxol waa Agricole Afrique nga xam ne moo mooy mooy maître d'œuvre boo buñ ko waxee àndal ko ak ay yeneen euh, baykat ak yeneen sopparñikat ndaxte bu ñu nee bay dañu yaakaar ne euh, mbay mi war nañ ci mën a am partie boo xam dañ koy jaglee transformation conservation bi lépp pour xeex rek yu ay xeex yoo xam ne du ay euh, yat maanaam mais dañuy fexe ba lépp lu ñuy bay meññeef nga ñu fexe ba mu bañ a yàqu de ce fait ñu daal di jël euh, meññeef googu lii ñu jaay ko ci marché bi samedi bi dana am bés bu ne samedi marché li ci des ñu transformer ko conserver ko pour que yàqu-yàqu bi am ci gàncax gi ñu mun ko wàññi lu lu mu gën a bari euh, man nag euh, maa ngi bokk ci kuréelu Refa Beck Fatim mooy présidente bi d'ailleurs ci cadre boobu laa mm, demee ba nekk ci biir euh, FENAP ba ñu fal ma fa vraiment donc euh, FENAP am am na njukkal lu rëy rëy loo xam ne askan wi amal nañ ko ko ndaxte lii bu lawee tey ba 14 régions Sénégal yëpp ñu mën ci yëngu xam li ñuy def ak li ñuy liggéey vraiment loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a gërëme waa Biovision itam jàppale ci euh, ay organisation d'appui yu mel ni ay euh, agricole Indapronat ASPAB ñooñu nga xam ne c'est des piliers ñoo supporté ay programme yoo xam ne moom la waa FENAP bëgg lawal ci biir réew mi jàppalantoo ko ak baykat yi pour que ñu xam ne rek agriculture biologique nekk na mbir moo xam ne dafa am xe euh, njariñ yu bëree bëri benn bi dafa dem ci lekk gi te lekk mooy indi wér-gi-yaram dina dem aussi ci euh, maanaam euh, environnement bi maanaam li ñu wër ndax euh, liggéey boo xam ne doo ci def poson yaakaar naa ku fa jaar doo fa am gas jafe-jafe dina def aussi lu baax ci jur gi ndax jur gi ñooy dem ci tool yi di lekk bu ñu demee fekk nag ñu ñu traité ay produits toxique yoo xam ne jum jur gi bu ñu ko lekkee am ci gàllankoor agriculture biologique maanaam dafa ëmb yu bëree bëri yoo xam ne dafa am ngëneel ci biir askan wi am ngëneel ci biir réew mi euh, déggoon naa léegi ngay wax euh, ndax euh, ñun am nañ appui de l'État appui de l'État yi nag ñun ñu ngi xeex pour que ñoom ñu mun ñuy intégrer suñu programme dans les programmes de l'État par rapport ak mbay mi ndaxte ñun mënuñoo sukkandiku rek ci ay yu njëriñ yoo xam ne day jóge bitim réew di ñëw te suñu état bii nga xam ne lii ñuy xeex njariñam moo ci jiitu ndaxte bu amul ay feebar état bee koy euh, euh, euh, gis bu askan wi xiifee lekk-lekk gu am maanaa baax ci wér gu mu nit ki état bi moo koy gis gànnax gàncax gi même atmosphère bi pollué agriculture biologique am na ci xeex bu mu ciy xeex donc ñun daal waa FENAC ci fànn yooyu lañuy ñuy yëngatu lëkkaloo ak suñu organisation dàpp yi nga xam ne ñoo ñu boot muy waa agricole Euh, indapronate aspap ñoom pour que liggéey bi daal mën a aw yoon wasalaam. wax mhm. mhm. euh, ci produit. yooyu boo demee tey euh, unité bu waa këri kaw foofa dinañ fay def ay formation maanaam naka la ñuy defee confiture naka la ñuy defee jus naka la ñuy defee sirop. ak naka la ñuy jëlee dugub ji maanaam touse ki qui est euh, gaañ kii mbay wala euh, maïs mboq mi ak ñaam euh, bi ak dugub ñoom seen ak yooyu yëpp daal dañuy fexe ba ñu consommation locale bi dafa wékku ci mbir yooyu donc moo tax waa këri Kaw di def formation yi pour que ñu mën di sole mbay mi lu jarul ñu mun ko soppar ñi donc euh, buñ sañoon nag unité yooyu dañ koy jàppale ba mu gën a performante ndaxte euh, dafa am ay euh, charte yoo xam ne unité bu ci nekk daf ci war a sukkandiku pour que lii muy liggéey di ko transformer mu def ko ci bërëb boo xam ne dafa adéquat maanaam dafa méngoo ak hygiène ak jumtukaay yu xarala yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour que mbay mi su amee euh, traçabilité liggéey bi ci biir euh, unité yi am aussi résultat boo xam ne kenn du ko laam-laamee dinañu may ñii transformer mën di exporter seen seen njaay yóbbu ko bitim réew yóbbu ko fépp foo xam ne ay foire daf fay am pour que ñun ñu mën a jaay suñu produit yooyu donc labellisation bi c'est important te itam euh, soxla nañu aussi ay ay reconnaissance yoo xam ne Fra yi dafa cher te mënuñu produit bu nekk ñu utal ko Fra donc loolu yëpp ñu ngi wax état bi pour mu jàppale ci transformatrice yi pour que ñooñu ñu mën accéder à ces trucs pour que ñu mën a def euh, ak kii yu mucc ayib daal. Mhm. Mhm. ah léegi de man loo sax dama ci sawar wax ndax jigéen <laughs> jigéen ñi ñoo yor kër yi léegi quoi qu'on dise ndaxte loolu la yàlla def loolu la yàlla def nañ ko nangu jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi bu leen neexee bàyyi leen bu leen neexee bàyyi leen dépense bi mais ñun duñu daw duñu daay te duñu duñu du duñu duñu kii daal dañuy liggéey te liggéey bi liñ ci amee dañ ko bëgg a indi ci njaboot gi te loo indi ci njaboot yaakaar naa ne jàppale nga boroom kër gi de n'est-ce pas donc euh, loo tax ma ne jigéen ñi ñu dara jàppale lañ ndax ñoom ñoo ñun ñooy euh, dëkk li ko ni ko wéy bi defee ne ñun ñun ñooy dundal àddina bi ñun ñii jigéen ñi ñooy dundal àddina bi mm. voilà donc man loolu laa amoon ci li ma leen di <laughs> yokkal par maa ngi tudd Meysa Faye maa ngi dëkk euh, commune bu Kër Moussa dëkk bu ñuy wax xodd Xoddoba nekk président fédération Wobin Wobin mooy woote bennoo indi naataange Euh, li ñuy yëngu nag ci agriculture écologique biologique la di membre fondateur fédération nationale pour l'agriculture biologique c'est-à-dire li ñuy wax ni au-delà de la foire foire am na c'est un événement boo xam ni dañuy woo nit ñi pour ñu ñëw mais dañu bëgg bu nit ñi ñëwee ci foire bi perception bi ñuy am ci foire bi mu bëtt leen ba mën a génn ba dugg ci biir kër yi autorités yi nga xam ne dañuy ñëw ci foire bi aussi ñu mën a capter li ñuy wax sens lu ñu bëgg a def ba moom bu ñu demee aussi ñu tenir compte ci li nga xam ni moom lañ leen dénk lii seen warugar ba loolu war a mën a law ci biir Sénégal agriculture écologique biologique dafa nekk loo xam ni tey bu ñuy wax Sénégal bu émergent te tudduñu agriculture écologique biologique dañuy des gannaaw parce que benn exemple laay joxe. tey xoolal Thiès li ñu wër fii ñu nekk ça fait bon vivre parce que garab yi bëri na garab yi am na lu ñuy jox ngelaw li neex na macha allah atmosphère bi sax doy doy doy kii na mais tey bu ñu jëlee par exemple benn façon agriculture boo xam ni dañuy jàpp àll bi yëpp tàllal ko tas ko garab du am déqi xeer yi utal ba ca ngelaw li à l'air libre muy ñëw nu ko neexee bu tawee muy jàll ndox mi nu ko neexee di def érosion. dégradation dafay daal di ñëw loolu boo ci doolee ngir indi engrais chimique di ko def ci suuf si di indi ay pesticides di ko nàndale suuf si suuf soosu yàgg yàgg yàgg day dee rek parce que lu dee kenn du ko dundale luy dund ñun li nga xam ni tey moom moom la ñuy dundee tey yàlla moo ko sàkkal boppam indi ko yaatal ko ba nga xam ni saa yu ñu jógee dañ koy jëli ci ci nature bi donc nature boobu ñun dañu war a collaborer ak moom walla au moins ñuy participer ci li muy def mais au lieu ñuy essayer di ko dominer ba moom dañ koy lor nature foo ko fekk mu loru rek référence yi nga xam ni moom mooy kii féete ba ci doomu aadama lay gën a méttee donc tey dañu bëgg ñii ñëw ci ci foire bi ñu comprendre que ni ñun li ñuy liggéey Sénégal yëpp lañ koy liggéeyal premièrement ministère de la santé ministère de l'environnement ministère du travail buñ ko bokkee ak ñi nga xam ni ñoom ñooy yore domaine recherche bi lii nga xam ni moom la ñu recherché si suñuy maam ba téye ko doon ci béy di ci dund di ci tedd sur le plan social sur le plan culturel yooyu yëpp bu ñu ko dëxëñee moom mooy tax ñu xam suñu bopp mooy tax ñu xam fi ñu jëm bu ko defee bu boobaa lépp lu ñuy def dina nekk lu durable te yàq bi du bari donc tey jii boo xoolee ñi nga xam ni ñoo ñoo siq fenat ay organisation à la base la yoo xam ni ñu ngi yëngatu ci bio te xamuñu ko ñu bari am na ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci pesticide te xamuñu li mu leen di lor FENAB tey mi ngi def benn tournée boo xam ni au niveau national dem na dans les quatre zones écologiques géolo géographiques yi Sénégal tey fu ci nekk FENAB implanté wu na fa et au au moment de la foire bu ngeen fa ñëwee di ngeen gis ne ñooñu ñëpp dinañ jóge ci zone yi ñëw fa te li ñuy wane du doon ay produits kese. mais njëriñ bi nga xam ni moom la agriculture écologique biologique am moom la ñu bëgg a wane autorité yi jàpp ko xam ko consommateurs yi xam ko parce que tey boo xoolee au Sénégal nous sommes de grands consomateur de pesticides te loolu état moo ci war a njëkk taxaw ñun bu ñu ñëwee de façon volontaire lañ ciy taxaw di ko liggéeyee bu ñuy wax problème de rendement un rendement boo xam ne da nga koy am ren déwén doo ko am loolu du rendement un rendement dafay durable bu fekkee ni am nga tey rendement boo xam ne nii cent cinquante kilos déwén nga mën a am cent kilos déwén jéeg nga mën a am deux cent kilos sa suuf di wér yow sa bopp ngay wér mala yi ngay nekkal ngay wér socialement nga stable donc loolu moom la agriculture écologique biologique di indi ci foire bi avec tous ces aspects nag bu ngeen ñëwee ci foire bi lépp lu ngeen fi bëgg a gëstu di ngeen ko tënk te loolu bu ngeen ko tënkee dañu bëgg nag yéen nag yenn fil conducteur bi parce que la presse dafa war a participer largement ci li nga xam ni moom mooy diffusion li nga xam ni moom la FENAB di bëgg a def état bi comprendre ko euh, instance yi nga xam ni moom lañ fi fal yépp ci biir réew mi ñu comprendre loolu vraiment doon nañu dem sax ba au moins ay commune sax ñu ñu déclarer seen bopp ay commune bio loolu bu ñu ko demoon ba am ko ñu collaborer vraiment Sénégal dina naat te dina jëm kanam ngeen baal ma jërëjëf salaam. Afrique. ñi nga xam ne ñoom lañ dénk organisation wu bi a ah, liñ ci bëggoon yokk rek ci liñ fi jot a wax yëpp mooy ni foire bi ñetti ñetti nit lañ ko jagleel ki nga xam ne day liggéey ci bio yaakaar nañ ni foire bi dina ko jëriñ dina ko soxal ndax moom ñun ñëpp ñuy liggéey ci bio Sénégal gi foo dem di nga ko fekk mais dañoo xaw a wér ci fi ñu nekk da koy fekk ci dëkk mu nekk ñaari nit wala ñett gëm ko. def na fukki at ak léegi mu nekk ci ñooñu ñoo fiy daje bu ñu dajewee liñ ciy séntu mooy ñu weccoo xalaat liñ ciy fen séntu mooy ñu wettaliwonte ci lii ñu nekk donc ñoom am nañ ci njëriñ buñ ciy wër ñoom nag ñi ngi mobiliser wu di ñëw wante bu ñu liggéeyee bio ba pare lii tax ñu koy liggéey du pour ka koy liggéey ca biir toolam wala ka koy liggéey ca unité transformation am wala ka koy liggéey ca entreprise am pour génnee ko jëriñ askan wi la jëriñ sénégalais yi nga xam ne ñoom lañ bokkal réew mi ñooñu mooy ñeneen ñi nga xam ne yaakaar nañ ni foire bi seen njëriñ mi ngi ci ñu leen ci woo nag ndax souvent booy def bio dañuy laaj waa bio moom lan la lan moo nekk ci biir naka ngeen di def ba lii am naka ngeen di def ba ñu xam ni seen produit bi bio la pour jot ci xibaar yooyu nañ ci ñëw na sa resque pour information bi loolu moo ñu gën a indi képp koo xam ne yaa ngi doon jënd soble te soble bi yow taamu nga ci soble bu sell li ñuy def du mbay mu sell rek mais mbay mu sell tey aar la dañu bëgg def mbay mu sell sell ci kaw produit ba fay génn en tout cas du gaañ du yàq mais sell ci kaw ca nañ koy defee day aar day aar gàncax gi day aar nit ñi day aar suñu cosaan ak suñu aada donc loolu yëpp buñ ko dajalewee dañu yaakaar ne boo ñëwee xool carotte rek doo gis ci biir carotte bi loolu yëpp nañu ñëw waxtaan ak ñun vraiment ñi ngi jéem a fexe woo ñëpp ba ñu ñëw laaj ñu waa yéen produit bii lan moo ko wutaleeg beneen produit ñu waxtaan beneen wàll bi ñu leen di soxlawee mooy a ah, soxla nga essayer produit bi soble su sell laa bëgg dañ nit moom mooy gën a yàgg ci denc bi dama bëgg cere ju sell ndax boo ko lekkee ni ngay suuree xëy na moo ne beneen bi ñëwal nga wut ci nga essayer képp ko xamoon nag bu lee boo nga ñëw nga jéem a approvisionné wu ndax ci koor lañ jëm xëy na bu boobaa bu foire bi amee bu paree fii ci Thiès ku soxla di nga am place boo xam ne di nga fa mën a fekk mais ña nga xam dañuy jógee Casamance ñëw dina baax ñoom seen bopp ñu dajeek ki soxla seen produit waxtaan ak moom donc loolu aussi ñu ngi ciy woo nit ñi mais keneen ki nga xam ni jagleel nañ ko lu mel ne foire bii pour ñun mooy autorités yi ngeen di wax ndax ñu ngi ciy jàpp wala jàppuñu ci souvent techniciens yi liggéey ci mbay yenn autorités yi dañu yaakaar ni bio su beneen mbay mi di def une tonne à bio 100 kilos wala 200 kilos lay def loolu weesu nañ ko dépassé nañ ko relance su foire bi ci liñ ko gën a inscrire mooy wane ni bu dee du ma ni intensification mais bu dee améliorer productivité ndax ñun rendement amaluñu solo productivité moo ñu amal solo tey lépp luy intrant lu ko mën a def existe na lépp luy xam-xam. bu war a mën a jàpp ci loolu existe na lépp loo xam ne mën naa ni àndandoo la organisation groupement existe na donc bu fekkee ne autorités yi mën nañu ñëw jéem a gën a xam lii ñu nekk lan la dinañu mën gis ni sénégalais yi mën nañu am lu doy ci ceeb mën nañu am lu doy ci soble mën nañu am lu doy ci tamaate te ñu bay ci mbay mu sell tey aar donc ñooñu tamit yaakaar nañ ni ñoo xam ne la dañ leen destinel lu mel na organisation bi am na ay conférence woo nañ leen ci invité nañ leen ci dinañ ci ñëw wante dañu bëgg ñu ñëw sol seeni dàll def seen t ak seen pantalon blouson bu leen neexee ñëw rek wër ci stand yi waxtaan ak baykat bi jógee Tamba te indi sesamam wala te indi foñoomam wala indi leneenam lan la ci am naka la ko bayee boobu lan la ci gis par rapport ak beneen bi ñuy def ci njëriñ bu jëm ci kër gi ndax du rek rendement bii laa am xaalis bii laa am mais njëriñ bi nga xam ne moo ci lalu yëpp kon foofu aussi ñooñu ñuñ ko jagleel la en terme d'objectif relance la nag relance la boo xam ne dañu bëgg à partir de ren dootul dakk at bu nekk dina am comme nañ ko daan defee agricole def na ko lu tolloog juróom ñaar ba juróom-ñetti at jox ko FENAP FENAP def ko ñaari at ñu am ay jafe-jafe ci ay moyens xaw ko taxawal dañu doon wuti doole yaakaar nañ ni am nañ doole dañ doon wuti pexe yaakaar nañ am nañ pexe à partir de maintenant day continuer ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci bio bi te yëguñu bii taarul pour que ñu ni ñu ñun de bëggoon nañ fa ñëw bu dul dara benn fan wala ñaari fan wala ci weekend bi parce que stand yi xëy na dañu 60 exposants parce que 60 stand la ñuy amuñu possibilité ñëw def benn fan ñaar dolliwaat bâche di dolliwaat stand mënuñu loolu mais am nañu possibilité ña fa nekk. di def bio man sama sànd nekk fi nit ñëw ni man kat dama doon def bio yëguma ko woon samedi laa fa mën a ñëw ma xajale ci sama wet loolu yaakaar naa ñiy def biyo mën nañ ko ci suñu biir te ànd nañ ci nangu nañ ko donc keneen ku ko yëgee ci voie bi te la nga doon def bio la ñu ngi lay ñaan nga ñëw bu dee benn fan nga ñëw fekkee gis ñeneen ñi bu dee benn fan nga fay ñëw nga ñëw exposer sa ay produits pour mën a en tout cas wane wu yow tamit te bokk ci biir bi suñ ci génnee dañu bëgg la 5 le 6 bu ñu xëyee ñu def évaluation samp comité pour dëwën évaluation boobu bëggoon nañu presse bi tamit ñëw fa fekkee du nekk conférence de presse du nekk dara nañ ñëw fekkee li nit ñi di wax la ñu kontaanul ñu dégg ko la ñu kontaan ñu dégg ko ndax ay nit lañu dañuy jéem dañuy raam suñu ay doole lañ ko jéem a defee buñ ko defee ñu tas samp ko fa comité nag ni lii nag dëwën heure sangam lañ ko yaakaar façon bii lañ ko yaakaaree nii lañ ci nar a demee commencé ko dox. donc loolu tam ñu ngi leen ciy invité di leen invité ci nag yeneen jour yëpp ngeen ñëw gis gars yi laaj leen ci ruq fekk leen ci seen ay stand pour xam lii nii ñuy wax nan la ko gars yi dundee parce que kii wax na ci turu Refabek Ndeye faatim wante waxu leen moom ba mu duggee ci bio beeg léegi lan la ko bio bi dolli diwuwul deful leneen wante gën na leer loolu mën naa ko wax. dem leen ci stand yi ngeen laaj gars yi ñoom tamit lan lañ ci gis ci njëriñ. sunu âge kenn ko jox. waaw donc loolu nañ ko jéem a def te en tout cas ñi ngi leen di ñaan di leen ci invité pendant toute la durée di ñaan lii ñuy dugg ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak ndam te chaque at ñu koy mën di defaat jaa ngeen jëf.